moo continue de plus en plus belle on reste toujours en politique parce que topp ka premier chapeau yi politique la ñuy wax parce que ici nous faisons la politique autrement et puis euh, ñu wax ci affaire ki nga xam ne moom moo di député boobu di agression contre Kouramaki à New York ñu daal di koy sotti ndox daal di koy yuuxoo euh, xale yi Sonko yi daal di koy sonkorisé bu baax a baax a baax ñu gis ko mu sol euh, costume bu bleu ndox mi tooy xepp ci kaw yaramam nit ñi mu mel ni waa Sonko yi dañ ko doon toroxal dund na fa métti dund na fa lu lu lu extraordinaire bu du toon policier Euh, euh, euh, New York yi wax dëgg yàlla dina demee neneen parce que xale yi dañ ko waroon ëpp ko te moom amul woon garde du corps police rek ñoom ñoo fa noonu pour veiller ci sécurité am Jimbori naka nga gisee ku mel ni Koura yi Euh, di député à l'Assemblée nationale di dem ci dëkk bu mel ni New York euh, te jërul ay matuwaayam et puis yuuxu yooyu ñu ko doon yuuxu euh, moom ban taxawaay la waroon am en tant que autorité en tant que kilifa donte ñu ngi lay toroxal mais yow ñu lay toroxal ñoom ñoo la def député seen réew. ñu am lu la lu leen métti ci yow si ñëw si yow di la ko wax est-ce que amul nu nga ko waroon accepter moom. Mm-hmm. parce que xale yi sax xale yi sax am nuñ nuñ échangeante foofu ak moom donte sax bokkuñ camp politique. Mm-hmm. non xam nga kii Papa Ndiaye Thiopet. waaw way na ko. way mm. lu mu lu mu jooy lu mu wayam boobu mu ne ku baax waxal mu ne ku baax sa bopp ku bonit sa bopp paap day baax na ci boppam kii lan lay def li muy def lañ ko def répété ko waat ma ni lan lay def nga ni pap papa Ndiaye nee na ku baax sa bopp ku bonit sa bopp paap day baax na ci boppam bu kenn ku bu kenn siis bu kenn iñaan bu yàlla nee na buur yàlla yàlla nee na nañ ko ñaan. léegi dam lay wax. moom bi mu fi nekkee bi mu nekkee fii li mu doon def lañ ko def. xanaa am loo ma wax la benn affaire. Hmm. yàlla dafa wax ni. dégg naa le. ah waaw lépp looy def. xoolal lépp looy def. Hmm. dina soppaliku gaynde fàdd la. jàngalekat yi wax nañ ko. waaw fa man yax man mi saala saratin xayran yoroo sarran yoroo. Mhm. li nga doon def nee na yii ne li ngay def ba lu teg ci la bu boo gisee dellu siwul sa kaw fekk dalagul ci miir bi. Mhm. ma ni li muy def nii li mu def nii est-ce que defuñu ko li mu doon def est-ce que fayuñu ko. Mhm. parce que tey ma wax la dara. benn bi nga bi nga xamee Kouramaki ba léegi benn programme la am ban programme la am. mooy dal si ñi ñi faraloon Macky Sall. waaw ba pare. ba tuddee ko ci Kouramaki waa léegi may ma tuuti ma ñëw. ñëwal ndax moom buy dal sa kaw day daw day dal sa kaw politiquement wala. Hmm. du ko def booy est-ce que xam nga euh, Abdou Diouf xamoon na si vie privée Ablaye Wade lu bari est-ce que xamal nga Ablaye Wade dara. kon Abdou Diouf ko amoon sutura la wax leen sutura waaw ma ni Ablaye Wade xamoon na lu bëri ci vie privée Abdou Diouf ndax mos nga ko xam déedéet mais ñooñu lan lañ doon politiquer ba kenn ku si nekk weerul moroom ci digg pénc mi ay stratégie lañ doon politiquer lañ doon mais kon booy trouvé nga politique politique nii lañ koy defee mhm. stratégie mais ndax politique yow da nga war a mën a taxaw bàyyi jàmbur am na benn maire boo xam ni benn jeeg jigéen boo xam ne saa bu ma ko wooyee nee na ma Sénégal di ñi nekk ci réseaux sociaux bi di wax dinañ mës a dab nit dóor ko bal. Mm-hmm. nee na fekk na la mu waxoon yaayu jàmbur wala lu mu waxoon bàyyi jàmbur. dama ne ndax loolu mooy politique léegi démb bu demee ñam loolu li mu doon def ak liñ ko def léegi dama laa laaj nattu ko ba xam bokkuñu nuróowuñu. wolof nee na lu waaj leble na doon lu baax booy gasal sam noonu kàmb nee na bu mu xóot. ndax mën nga ko yaa ciy dugg. dëgg waxal rek. ki soon gasal Mouhamed suñu sang bi ñun am na ku xoyoon gasal ko kàmb woo ko mu ñëw pour peser ko Mouhamed ñëw ba jub kàmb gi yàlla ne ko booy avancé di dugg ci kàmb Mouhamed di arrière mu ko doon xëcc par daanu ci kàmb gi léegi sang bi lu mu gën di dem pax mi di gën a xóot mu ne daw dab leen woo ko bu ñëwul jéggal ma pax mi day gën a xóot de ñu woo ko lu muy gën di ñëw waaj di sulleeku pour wan xoola bi muy ñëw moom Mouhamed bi muy ñëw si mbaax la doon ñëw kan bi di génn waa ji bi muy bi muy dem waa ji ci mbonam moom pax bi di gën a xóot parce que pexe waa ji la yàlla di dogale mhm. bi Mouhamed di ñëw pexe Mouhamed la doon dogalee kon booy gasal sa noon kàmbu bu mu xóot ma wax la dara Coura Macky xoola ni mu juree doomam yi ci biiram noonu la war a juree Sonko ci biiram mhm. booy ñun Macky Sall mii Macky Sall mii. Mm-hmm. doon tokku ànd tan moom xale kii non non. yee kii te jamono yuuxu leen la. yaa ngi ne ngoone mi du gën a gund mu génn fii. bàyyi bi liis na ngoone nga baal nga lay wax rek xoola ma wax la benn affaire tey jii euh, Macky Sall mii ñun bokkuñu gis-gis mais ñun ñëpp war nañ ko yéene jàmm. waaw jàmm rek lañ ko yéene de. man bu ñu bëggee mu folleeku tamit nañ bëgg mu dund. mais politique boo xam ne dangaa dem ba yow nit ki ngóone nga mel ni ku la ko tëral nga faat ko rendi boobu ñun ñu war a jogaat seetaat politique bi ñii di politique. ba pare yow xoola Sénégal léegi Sénégal léegi. est-ce que falati nañ nit ci diplôme ak expérience ak morale ak xam-xam loolu laa lay xoola bu ñu demee ba sama classe gii ñun léeg-léeg dañuy wax ci tele gars yi naan la yow de bu diw jëlee war na laa mën a fal mm-hmm. mais damaa jàng. lan la may fal jàpp ko ci waxal rek loolu moo lay wan ni xoola affaire bi affaire nekk affaire nguur amatul valeur xam nga lu tax amatul valeur tey personnance yi ngay gis da ngay randu si mais est-ce toroxal ku mel ni Coura Macky député le Sénégal ma ne ñu toroxal ko fa bëggoon ndox bu max koo lu def wax benn affaire kanakal la man daje nañ émission mu may toroxal mu may def nii nii def na ma ko man hmm. su ma yëgoon dama lay jox vidéo moom def na ma nii Hmm? waaw ba pare taal keneen di ma filmer muy saaga suma ndey ci anglais te waxuma ko dara dañu waxante ci gis-gis rek hmm. yaa ngi dégg hmm. def na ma ko man kanak kanak keneen kum ko defaat bërki démb lu mu wax lu mu waxul amul ci lu ñaaw wax ko saajoogu wax ko amet ay dara xoola ñun ñun dañoo war a soo biis di soo nii ci ñàkk bokk gis-gis mais est-ce que war nañu soo ci yenn nooneel loo xam ne boo ko waxee bu ko mbokk nit ki gisee déggee du ko neex bu ko doomu nit ki wax gisee du ko neex nangam nangam ñaata yoon ngay gis muy toog di traité comme Bougane comme keneen ak keneen comme Ousmane sonk te gis nga bi mu paree bi mu paree nii ñu ko def mhm. waxaat na fa sonk lu gën a rëy xanaa seetaanoo ko ah bon lu mu wax Sonko mu yéen loolu kay duma si wax bi mu paree nii waxaat na lu gën a rëy loolu kon li li réseaux sociaux yi di wax naan lii mérité na ko yow tamit loolu ko bi mu paree foofu foofu ñu ko doon defee waaw nee na li ngeen ni bañ nangam la maa ni diw nangam la vidéo yaa ngi fi kon seetaanoo vidéo yi kon moo tax kay xale Sonko mais dama lay wax même mais Coura Macky bi ko président Macky Sall doon jël hmm. est-ce que xamoon na ni lii la koy defal loolu laay laaj parce que falu ko par compétence mais da koo fal parce que moom la doon défendre noo déedéet ndax yaak déedéet xam nga nit mun na la gis nga di ko waxal nii mu jël la yaa ngi dégg nga yokk affaire bi yokk yokk est-ce que yokkul lañ ko jëlee woon ak lim ci teg est-ce que benn la d'accord xoola góor sax moom lañ daan gis mu mel neen li mais jigéen lu mu mës a wax wax wax wax daka daan booleeg dawal ma yërmande booy am na ay politiciens yu fi jiitu woon xoola ma wax la dara maire Waré Sarr kan moo ko dàq politique ku baax teg si mus nga gis mu def ni déedéet waxal moom chaque jour eh, mu ngi. maire maire xoolal maire Aïda Mbodj ku ko dàq politique mus nga ko gis mu mu mel nii te ñooñu buñ doon joxe réew mi. ñooñu ay politiciens non mais mais déedéet mais mais ma wax la dara nag ngoone. voilà ma wax la dara est-ce que xam nga yàlla bu doon dof bu do yàlla bu lay bu lay def nga dof est-ce que da ngaa foog ni da lay tooñ. day doolu sa dof comme man xoola bu ma yàlla doon def ma dof man ah wax ju bëri ji lay yokk. gis nga ndey gay bu yàlla doon def mu dof fecc mi lay yokk ak rëb-rëb ji rëb-rëb ñu muy rëb-rëb mel ni ku dof noonu <laughs> di kulleeku yaa ngi dégg noonu la koy def même yow mii ni ngay falli fallee bay daaneel lii bu yàlla doon def nga dof loolu lay def bagage boo ah, tourné yàq ko te sa loxo yi mun a toog benn place xoola yàlla du tooñ kenn bu la fekkee nga noppi day yokk noppi gi hmm. bu la fekkee nga bari wax day yokk bëri wax gi bu la fekkee nga réew réewande gi lag lay yokk toog di la xool mu yokk nu mu la fekkee noonu la la koy defalee kon ku ramaki nii lii la yàlla yokkal moom eh, ah moo eh, ndax boo liggéey nag saaga xas nga nag non boo liggéey xoola mus nañ daje si palaatoo xamal lu ma ko wax mu mer dama ne ko tey tey boo ko woowoon nii nga invité ko ngir yàlla ak yéen ngir yàlla ak yonent bi ah. appel waaw xoola hmm. nga laaj ko lan moo tax ñu invité la xamu ko ah elle fait le nga ko elle fait le buzz ah buzz koy doye buzz nga koy doy ñoom tas nañ greffage am yàq nañ si yàq nañ waaw gisee lii ñu ko def ni xëpp ko ndox tas greffage am bi nii yàq si xool oh oh xoola costume bu rafet bi ñu tooyal nii xam nga la ah. moo tax la gis nga àdduna bi baa bi kay moo yàgg xaw ma fu mu ko dencoon gis nga àdduna mooy li ma la wax rek kenn yéeneew ko ko ndax jigéen la ndax man mii di waxante yow yéenew ma jigéen ñu dab ko ci mbedd wala baa bi moo yàgg xaw ma fu mu ko dencoon <laughs> wala baa <laughs> la solo jimboor yaay eh, tooñ eh, baa bi de ca jamono yuuxu leen jëla ba pare xam nga tey yow nga nekk maire waroon a toog noppalu jo xanaa am la kii nii bu doon usine lay liggéey retraité na bu yàgg non non eh, kii kon ne yow xam nga xam nga tey nga bëgg nga nga nekk nga nekk ci ci ci ci gouvernement. Hmm. waxoo ci lu baax defoo ci lu baax. mooy li may mënta wax ma ne lu kaa bi di méttee métti xëy na Macky bu toogee di jëf kenn mosu koo dégg mu génn wax ay wax yoo xam ne gros mots na mais gis nga am na ñoo xam ne tey jii ñoo topp ci mag Macky dañoo sadik xam nga nan leen fi tegee dañoo dañoo yeb xale influenceurs yi rek. influenceuses yi dañ leen a yeb naan leen influenceuse naa nga naan mais ñu gën a garaaw ay influenceuses yu gën a mag. ñoo ñoo nekk ñoo nekk ci parti bii di ñoo xam ne tey la la leen fa jëlee genre Fatoumata Ndiaye Fouta Tamp yi ak genre Koura Macky yi ay délinquant yoo xam ne na perte nañu perpète xam nga lan mooy seen problème dañuy ñëw gàtteer la ñuy doxal kay xaste kay saaga dëkk dóore fay yoo ko tas <laughs> li nga def Ousmane Sonko bu la ko li nga def Ousmane Sonko mhm. tey bu la ko waa kër Ousmane fayee tey tey mi ngi tey ji Koura Macky mag la yaay la te jigéen la ndax lii ñu ko def nii tey mérito wu ko couronne Macky dafa mérité en tant que jigéen fu mu taxaw ñu takkal ko couronne fu mu taxaw ñu ñu ñu honoré ko fu mu taxaw ñu jox ko gëddam ndax ma rafet lu ma ñu fekk jigéen di ko dóor wala di ko toroxal mais àdduna bii lépp looy mënta def ndax tey ji taxaw ku mel ne Ousmane Sonko koo xam ne ne yaayam politikul yaayam polikaanu nekk jigéen bu sell jigéen bu baax boo xam ne ba mu toogee ba tey jógul jàg ko fay jëlee te yàlla na yéex mais nga tàpp yaayam di saaga te yaay Ousmane Sonko kiiyul ay jabaram ngeen saaga lu nekk nga saago tey nag Ousmane Sonko fayul nañ ko te moom fayul Ousmane Sonko lañ daan wax mooy woote ay violence mooy def nangam mooy def lii mooy def lële dafa am yenn yoo xam ne dafa rafetul jaaru kura makk gi ay ñoom Fatoumata Ndiaye a Tampi hmm. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ne ñooñu ñu politique si ndax politique dangay fekk dangay jàng ba ne ar tey ji politique lépp loo xam ne danga cee dugg pour jàng ko tey jii bu nekkee ci wàllum santé nga nekk ñu jël la def la ministre de la santé bu nekkee tey tamit eh, tey tamit ci justice nga nekk ñu teg la ci waaye ñoom ci lan la ñu nekk du xeex a xul la ñu teg les ministres de saaga et de et de insulte ministre de injustice et de saaga <laughs> loolu moom moom lañ leen jëlee di hmm. moom lañ leen fal ministre de injustice ñoom ci injustice dañuy teg tey ku wax dara président Macky Sall président Macky Sall day toog nit nag looy mënta euh, foo mënta nekk amal fulla amal fayda amal personnalité nekkal président nekkal ministre loo mënta nekk nga nekk gouvernement mais doo ma jël ma di la saagaal ma jël la di la xasal parce que on sait jamais nguur lekk ak naan foo lekku day métti ndax tey jii bi ñu fi jógee Ousmane Sonko toog tey jii yow nan ngay xoolee Ousmane Sonko wala keneen ak keneen toog fi mais nga bëgg a nekk ci gouvernement ñu teg la fa yow lañ la jëlee uniquement pour saaga jàpp yaayu jàmbur saaga saaga nit ndey ci politique jàpp nit tabaase ko fekk biir këram terrassé ko toj ay otoom difformé ko di diffamé ko sasiné ko ne ko lu ne nga def ko ko ndax ci politique boo toogee di jël ay wax yu ñaaw soo toogee di jël ay wax yu salte di ko teg ci nit yéenew ñu ko ko ndax man mi jigéen laa mhm. tatu kuram mi yaay la bëgguñu kenn ku ko dóor mais lii mu def nii dëkk fóore fayoo ko tas sa te lépp too fay too loolu merci beaucoup messieurs dames très chers internautes il est 20h passé de 7 minutes mise en beauté technique assurée par notre frère Dou le grand réalisateur alors je vous rappelle aussi que euh,